à, ờ, cũ cho bà mình nhắc gần tàu đâu lo con tu cô lo ini mana lagi sini kau makan Ya. Chef Ronald. Chef. Bos lah, No. nih bos wow lah. Si, bos wow nama dia juga. Cie lah sini bro. Cie lah sini bro. Dia mana? magam man prof boobu de un neexuma mais damay sama li nga nekkee di doxee ci école bi noonu ak booy ni parce que prof bi mooy téye leçon da lay bind bind bind bind bind bind Sénégal daal dañoo jëli nii rek ne élève bu ñëw yaakaar ko ab picc du ñëpp a doon pit quoi pit boppam tur boobu ay ca diw cagala diw cagala prof ñooy def ñi ñuy doon caga non parfois day am parfois day am nag moo yow lii dafay jaaruwul yoon waaye wan Hey, yo, with a book. Hey. Hey, young A. What's up? City Gang. gang. Mais lagi. Iya, jauh banget. Ayo, qu'est-ce qu'il y a dia kasi te exercice maa ngi doon tagg nag sànq ci omi mais bàyyiwaale ci xel jigéen la de te am na góor yoo xam ne si jaruñoo wóolu